xeex bi nu yàggoon di amal ngir soppi ndoxu Mbàkke tey ji jur na Mbàkke génn si jafe-jafe yi mu nekkoon si wàllum ndox mi tàmbale woon nañ ko si ay ñaxtu réunion porte à porte wax seeg ñëpp ñun si war a waxal donte sax bi ñu koy tàmbale métti woon na loolu groupe bu ndaw la woon di màgg nànk nank dem ba tut la population de Mbàkke adhéré waaye nag loolee bu amee dafa am ñu ko waral di mbooloo mu jóg taxaw tem ngir soppi ndox mi si biir mbooloo moomu nemmeeku nañ si benn pionnier bu naan docteur Mamadou Mbodj jot nañu dellu siwaat ci taxawaay ba mu amoon bàyyi léppam ingénieur bi doomu Mbàkki xam-xamam màccu ci wàllu chimie dellu siwaat ngir xeexal askanam ci ay moments yu fort ñu fàttaliku ko. donc ñun appel bi ñu doon wax waa Mbàkke lañ koy wax lii seen xeex la ñoom ñoo war a jug xeexal ko seen bopp demandé ñu jox leen ndox mu baax respecté leen comme ni ñu waa Dakar mais waruñ ñëw fii jël ndox moo xam ne yow liñ ci dépensé pour am nga jaay ko ay nit piri bu cher dem Dakar dépansé ci ndox. mën nañ jaloge liñ bañ kay mooy di fay ndox mu bon ak kuy wër ci dëkk bi di tiital askan wi di passer de fausses information donc nous sommes prêts à accompagner comme ñoom nañ nangu ne li ñuy jaay baaxut ñu bàyyi nit ñi ñu bañ a fay ñu defar ndox mi ba mu baax ñu discuter nag sur les modalités. ñëwoon Sadio pour xool état d'avancement des travaux. ñun ñoo nekk ci bopp association boobu doon xeex pour ñu soppi ndoxu Mbàkke ginnaaw bu ñu defee ay analyse yu wane ne ndox mi dafa amoon ay éléments chimiques yoo xam ne dafa dépassé te baaxul ci wér-gu-yaram ay experts ñu bëree bëri génn ay rapport wane ko ginnaaw gi nag ci lañu ñu état bi dégg bay def travaux yu mel nii euh, ñu kontaan ci am ci satisfaction ñëwoon nag doon xool fan la liggéey bi toll euh, ñu jaar ci sànc bi pour waxtaan ak yéen mais également félicité leen war leen ne li ngeen def kontaan nañ ci am nañ ci mbégte te mbégu waa Mbàkke la yëpp te du yem Mbàkke ginnaaw ndax bu ñëwee day jàll ba Jurbel jàll ba Njaarim tey jii mën nañu jàpp ni Mbàkke am na nañu ndox mu neex loolu di contribuer si seen santé yi la askan yi mosoon rêvé loxoom génn si moom docteur Mbodj moo tax askan wa nekk jàmm génn ñoo jóg ngir sargal ko say xumbute wane seen mbégte ñëpp génn jigéen ñi amuñu woon sax ay moo pour mën a fésal seen bànneex si seen doom bi ñu jàpp ni kat buñ ko amul woon dina ñaaw gën a nag fésal seen yéene si moom ngir jox ko mairie bu Mbacké ndax nag jàpp nañu ni kat mu ngi taxawu seen doom si école yi bi mujj mooy taxawaay bi mu am si maternelle bi si biir école Serigne Bassirou Mbacké waaye tamit social kenn du si moom tey jii mu fexe ba ndox mi ñëw ëllëg bu ko histoire wax dañ naan kat. doomu jàmm gën bokkoon na si jigéen ñoo ko ko deferee ñëpp ko félicité sooba yàlla dama koy dugal école bu am waañ am duus bañ koy tëj sécurité la te Modou Mbodj mi moo ko waral dañ lay ñaanal yàlla fa nga jëm yàlla na la fa yàlla eggale barke Serigne Touba Mbacke ñun sa jabar yi dey ñun sa jabar yëpp sant nañ la gërëm nañ la te ñu ngi lay ñaanal yàlla fi nga teg sa tànk yàlla nga ko eggale te ñuy ñaan yàlla nag mairie Mbacke bii bu dee lu la jig la yàlla na la ko yàlla jox te dañ la koo ñaanal pour nga jël ko barke Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne boo xëyee mën ngaa jaay 1000 francs ndox te léegi boo xëyee sa 1000 francs yi mën nga koo dugal ci leneen jëndatuma ndox jëndatuma leen kenn jëndatul ndox ndax Modou Mbodj ñu ngi lay ñaanal sa liggéey bi yàlla na barkeel yàlla na nga toog ba moon maire Mbacke bi yàlla na nga toog ba jot ko. moom docteur nii la somme des efforts moo waral li am moo taxit fi mu toog la delloo njukkal groupe ba mu àndaloon. mais nag bi day wéy am nañu yeneen perspective nga xam ne waa koñ bi ak fu fa ci Mbacke ñëw di sargal. waa ànd sopp ndoxu Mbàkke Bawol jaare ko ci sama jëmm ndax maa nekk président bi mais nekkul ne man kese maa doon xeex ñu bëree bëri ñoo ci doon xeex askan wi amee leen reconnaissance reconnaissance boobu nag lañ commencé di ko exprimer moo tax fu nekk si Mbàkke ñu ngi fay woote di sargal ñi nga xam ne ñoo doon xeex ndox mi ma ci beral loxo rek ñi nga xam ne ñoo doon xeex ndox mi te teew fi tey ku mel ni sëñ maam Ndiagañang sonn ci lool jàpp ci bu baax suy ci un rôle déterminant sëñ Pape Gueye mi ngi nii ak sëñ Mbaye Thiam ñoom sëñ Thierno ak mbooleem xeexkat yi nga xam ne dañoo jàppoon si combat bi doon ci joxe lépp lum laajoon ñun ci fàttewuñu leen ñoom mën ñang Cheikh Omar Gueye borom xalima gi Baye Ibrahima Seck docteur Fall Mbaye euh, Père Mabé ak ñëpp ñi nga xam ne rek jàppoon nañ ci nañ xam ne sargal bi seen sargal la li nekk ci xol yi nag nit ñi ëmb ko di ñu ko ñaanal moo ëpp moo féete kaw lii maanaam li li li génn rek maanaam li ñuy wax iceberg moo génn mais xam nañ ne li ñu ñu ëmbal ci ay ñaan ak yenn ñu ko moo ëpp lii donc ñu ngi wax amin di ñaan yàlla mu dolli suñuy xéewal ba ñu gën a jëmmal yeneen yu yoo xam ne day féete kaw lii li nag li ñu ko may mooy bëgg dëkk bi ay nit ñu baax yar ñu jàngal ñu fonk sa réew jàngal ñu fonk sa cosaan moo tax bi ñu demee ba xam lu am njariñ tamit dañ ko walbati delloo si ko te pour yaatal lu mel noonu nag moo tax ñuy intervenir ci école yi di intervenir fépp foo xam ne mën nañ fa yaatalee xam-xam ndax xam-xam rek moo mën a tax ni ñuy dundee muy soppeeku xam-xam moo mën a tax bu ñu nootee ñu mën a dindeeku ci nooteel boobu. waaye li muy xeex bokk na ci politique politicienne bi ñuy mbubboo ngir nax askan wi ne nag ñoom action la ñu xam lu nu mën duñ ko duñ ko jëf waaye nag fi ñu toll nii seen ëmm mooy fexe ba conscientiser population bu Mbàkke ñu xam ni kat am na nañu ay droit te ñoom dinañ doon seen gët ak seen lépp ba kenn leen mën a naxati yi bu ñu sukkandiku say kàddaw. nag dinañu roog jotaay parce que lépp loo xam ne day am ci politique mën na cee am. muy animation ak ay wax mais ñun nekkuñ fi ci digge dañoo nekk di def action te lépp loo xam ne dañ koy wax ñun ñi day fekk ñu jëmmal ko ba pare ànd ak ñoom ci dëgg ànd ak ñoom également ci di leen yee di leen yee ndax politiciens yi dañoo yàgg nax waa dëkk bi ñun nag dañoo taxaw pour yee leen nekkuñ ku xëccoo ay post wala di créer ay mouvement parce que yooyu noonu yëpp ay xeeti naxaate la di organiser ay tournois di def yu bëree bëri yoo xam ne pour promotion politique la loolu ñun taxuñoo jóg amul dara lu ñuy yëngal loo xam ne dañ cee bëgg am post politique parce que li ñu am suñu liggéey poste politique mënuñu ko may xam nañ nag yoo xam ne am amal nañ ñu njariñ ci wàllu xam-xam ci wàllu doxalin loolu dañ ci ñëw di ci yee askan wi te nii lañ koy jaaree nii ngeen gis rek ñu koy organiser noonu lañ koy defee incha allah. ànd soppi ndoxu Mbàkke gañe na benn combat bu am solo ci diir bu gaaw muy ndox mi nga xamante ni ma doon jàpp nii lu ëpp fanweeri at ñi ngi ko doon naan te nag bu amoon jeexintal lool.